sëriñ bu njaay moom tamit mu jege si xam naa ñu def tuuti euh, caméraman bi waaw sëñ Ablaye Ndiaye Baye Fallou Njenne sëriñ Souhaïbou Ndiaye moo ko teewal waaw ñu yëkkati ko bu baax mhm. sëñ daam kenn dootu ko présenté ci njàmbaaram ci taxawaayam ci liggéey bi ak ci ci njenne ni ñu ko mën a waxe rek mu yaatu macha allah yaakaar naa moom ni ma ko waxee léegi rek. na Adja Fall ñu may sëñ daam mu wàcc ñu yéegal soxna Adja Fall mu ñëw. Ku Njaay mën na jege sëriñ Soxna Ku Njaay waaye soxna moom itam yaakaar naa ñi bokk ci liggéey bi xam nañu taxawaayam bu baax a baax macha allah. <laughs> sëñ Moussa moo ñuy joxeel neexalu sëñ Ablaye Ndiaye Baye Fallou Njenne sëriñ Sowaay bu mu ngi nii moo ko teewal sëñ Ablaye moom Pastef bi ak yitte mënee su koo wax loolu moom lot lan nit ñi yëpp lottu nañ ci wax ko sëñ Moussa. kon maam Fatma jege si na ah, moom damay woo sëriñ Seex genn moom tamit yaakaar naa taxawaayam dinañ ci leeral tuuti. délégation yi nga xam ni ndànd ba Touba waaye Pastef bi ci moom lottu nañ ci tudd ko ci njàmbaar ci bëgg liggéey bi waaye engagement ak dogu ak takku bi mu ci àndal bépp jot bu mu am jox na ko liggéey bi kon soxna si ñu ngi lay jox ndokkeel bi ndokkale bi dina la ndokkeel di wax ni mboolem jamaaya bi yépp seen xool sedd na ci yow bismillah sama xarit sañ am waa Tawfekh Production ñu ngi leen di sant ñoom itam bu baax liggéey bi bu tasaaroo Touba TV yi man ko jël yeneen seen yi man ko jàllale ñoom ñoo indi liggéey bu rafet boobu waa silatu rahim nañ ñëw ñu jox seen seex neexalam très rapidement ndax waxtu wi waxtu wi euh, daf nañu xam naa da ngeen ñuy baal kàddu yi ñu joxe ñoom ñooy neexal seen seex waa silatu rahim ko defee nag suñu am dama lay bàyyi nga dugalal ñu genn kilifa muy sëriñ Makhtar Diène bokk ci liggéey bi waaye balay boobu ñuy sant bu baax a baax délégation yi fi teew yépp kilifa yi moom amuñu seen fay waaye soxna May Diène li nga xam ni mooy moom la ñu ñu dara jaale bis bi ci la bokk njabootam teew njabootu addiyee joo xam ne dañ ko bëggoon a saafante ak njabootu maam Cheikh Issa gi. rawatina mhm. le coordonnateur général Serigne Cheikh. Serigne Cheikh waaw. Cheikh Mbaye Guèye ñëw na. di taalibe si ñu dëgg la. Cheikh Mbaye Guèye kon kàddu gi dañ koy jox Cheikh Makhtar Diène. Cheikh Makhtar Diène nii ñuy bëgg a jox kàddu gi rek. si Cheikh Bunda. waaw say Cheikh Makhtar Diène mii ñuy bëgg a jox say Cheikh Bunda ñëwal. day ab sakk yoonu murit. di jàmbaar lool di boroom xam-xam di ko sell borom jumaa yi njabootu gi tënk seen kat bi jox ko ko jumaa rek mu war koo yëkkati seen tur kon Cheikh waxal ay abiyaat sëñ Maxtaar mooy wax ci tur détail bi collecté ko sëñ yaa ngi jox jàmbaar Cheikh Maxtaar Diène kuréel social moom ngay bëgg a jox kàddu gi nanga maa si déglu ko jàmbaar yi maam Cheikh Issa Diène ma wa ma amraadi وبردا تنخاد للأخراد مع بلائي ومع أمرادي وبردا تنخاد للأخراد نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليم عبيب ربيا قلت له كليتي في العلني وسر وحولي قاد الولني رفعت قدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفديلا di jot li kàddu yoo xam dafa jóge ci taxawaloon bis te lépp jëm ci sant cant googu nag dañoo waxoon ni nañ leen jot ak cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. Serigne gi nag mi ngi jëm ci. njabootuk sëriñ ma ndumbe gi nga xam ni yaakaar nañ ni ku fi teew tey sa xol sedd na lool ci ni nga xam ne noonu la waajale waajalee bis bi ak taxawaay biñ ci def yu am solo yoo xam ni bañ ko jàppee ba léegi seen yitte yépp def nañ ko ci jël seen alal sax def ci ñu ngi ciy jiital ci nuyoo boobu ak cant gi sëriñ Talha Mbakke ak sëriñ Maam Moor Mbakke ak sëriñ mam Moor ak sëriñ Maam Moor Mbàkke ba tey ak sëriñ Abo Mbàkke Fallu Assa ak sëriñ Abdou Samad Mbàkke Alaaji Baara ak soxna Jaara Mbàkke Muntaxa ak sëriñ naa mi nga xam ni mooy sëriñ naa Ridis mi toog euh, sëti Seex Isaa yëpp nee nañ ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen sant cant googu it ñu ngi ci boolewaale sëriñ Sidi Jenn Abdou Latif Ibrahima Diop mi nga xam moo fi teewal sëriñ Abdou Latif Jenn ak sëriñ mbakke jenn mi nga xam ni doomi sëriñ Naar jenn la ak Serigne Sidi jenn mi nga xam ni kilifa la ci Serigne Cheikh mi taxawal bis bi moom Serigne Souhaïbou jën ak Serigne Souhaïbou jenn mi nga xam ni ku ne xam na taxawaayam ci kër gi ndax kaddu yu bari moo koy jot ñu di ko wax Serigne Souhaïbou jenn moom sëriñ mbakke Marème ak Serigne Abdoulahat jenn moom sëriñ Naar jën kon loolu lañ ne woon ak soxna yi nga xam ni. ñoom it ñoo bokk Cheikh Issa ak taalibe yi taalibe yi rawatina taalibe yi nga xam ni it seen yitte yëpp def nañ ko ci luy tax bis bi jag kon nag ñoom ñëpp ñi fi teew sëriñ Cheikh nee na ak ñi àndal ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci turu sëriñ Abdou Latif Diène mi ngi jot li ngeen jot leel ko sëriñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Mandumbe ni ko jëf jii ngeen jëf rey na ci moom lool te boole gu yàgg la te ku xool image yi fi jaar. di nga xam ni ñoom ñaar ñii li nu am amuñu ko ci lu dul ab coona ak yitte ju kawe kawe jooju nga xam ne roye nañ ko ci seen sang ba nabaxtukum maan ala kaddil bada lii xablaan ara ridon mu abda mu abada yee naa leen laata may am ngërëm lu sax lu dëgër nan laa def te xool image yi di nga xam ni ñaar ñooñu seen jëf yu rëy yi ci sëriñ tubaa yitte moo leen ko may te mooy himma himma jooju sëriñ tubaa taxawale yoon wi kenn ëppalewu leen ci muy sëriñ Mandoumbe ak Cheikh Issa kon daal mu gudd mu gàtt loolu baati cant la woon hmm. baati cant la woon yu jóge ci njaboot gi yëpp sant nañ leen ci seen taxawaay ci biir cant gi ñu ne nañ sant sëñ moor mi nga xam ni moo nekk Ndakaaru hmm. te féete fii kër sëñ Mandoumbe wax nañ ni lépp lu jëm ci communication bi jëloon na loxoom def ci bu baax a baax a baax kon jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fay yal nañ ko teewee nag ni déwén wasalaamaaleykum sëñ Maxtaar sëriñ Maam Cheikh Tandine mu sëriñ Aliou Tandine